dalee nag jàmm seen seen production di ñëwaat ak yow nag euh, lii di seen euh, série famille sénégalaise sama gars yi euh, mun nañu soxna Bator pour le l'instant waxu xaalis bi da ko tegee côté ndax su ngeen bàyyi xel ni que ni Malal jox na kii di Marlo 15 millions. te yaakaar naa 15 millions yooyu noonu ba ko Marlo di joxaat kii di Mariatu kii di soxna Bator teg na si bëtam. te yaakaar naa xaalis boobu noonu lu mu nekk si problème mu ngóone bi moo tax lijjanteegu ko mais bis bi paree rek euh, xaalis boobu noonu dina si euh, am part te yaakaar na soit mu braqué ko soit mu jëm ko chantage pour mën a jot xaalis boobu noonu mais de toute façon nañ attendre pire bi rek chaque jour si soxna Batoor ba tax na nag euh, moom mi lay maarloo su deful attention si xaalisam bi mu dénk Mariatu dina ko perte ndax soxna Batoor ay pexam rek du mus a jeex tamit du doy mukk Malla dafa def erreur ndax mënoon na jël xaalis bi def ko ci compte bancaire kii di euh, papam bi mooy moo gën mu ko indil kaas te tamit euh, ba mu koy indil mun nañ ni euh, Marlo moo def faute ndax yaakaar naa waroon na jël xaalis dem ba dugg ba ci néegu Mariétu daal di koy jox foofu noonu mais pas mu koy jox ci kanamu ki nga xam ne moo nekk soxna bootoo te mun nañ ni gisuñ ko sax mais fu mu ko joxee moo amul sutura moo tax tamit xaalis boobu dina am dina indi coow